réaction ne dañu génn yonent bi dëkk bi benn ci ah, lu ñaaw daf ko ci kaaba gi yàq dara pour ñu wetti yàlla ni ko lii du la yàqal 네, 네. moom ca Ndakaaru ja wala bi ma ñëwee sa bàyyi la al axil kabir bi manzilatil abi 2002 Sénégal ak ñaari wayjur uquuqul waalidayn keroog nettali naa ko benn xale daa ñëw ci yonent bi ni ko ndax deseelati naa sama yaay benn àq yonent bi ni ko loo liggéey ba wax mu ko dama boot sama yaay kullu ziyaar juróom ñetti fan Madinatul Munawwara ma kaw ma bokk dem sul xulayfa armal bokk sama yaay di dox wuti mag naan labbayka allahuma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka sama yaay ci sama kaw làq sama xalaat maa ko làq ci xalaatu way jur moo tax way jur na moytu mere njabootam njaboot na moytu way juram mere ci lu xew lu xew sa digganteeg sa doom mu ni ko am na benn bés ma woo mu ne ma yaay maa ngi ñëw koroog dem metti na ma parce dama ko yàkkamti woon yonent bi ko soo ko baalul nañu ko jël digganteem ak safara bi bi ko yóbbu ci safara bi yaa ngi yuuxu laxasu yonent bi ko bàllaa ko bi qalbin saliim ci xol bu seddu guy yonent bi ko soo ko baalu woon ba kenn doxul digganteem ak te bañ ko bëggee lakk xolu njureen jàpp na ko waaye ñetteel bi bàkkaar yi gën a rëy mooy alaa wa qawlu zuur wa shahadatu zuur wax lu dul dëkk ak seede lu dul dëkk wax lu dul نبيه مكة ندم زيارة سيدنا محمد لي موي موفمنت ندول القران ندول دنيا القران ندول سونو خوي تي صلاه على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا تصديقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كون موفمان بي سيكسيون مانا بيرغامو موفمان les amis du prophète section mi ngi prévalé lan mooy liggéey rasul barakallahu ah ñu baal ñu rek bërëb bi dafa am waxtu te yàlla dogal na suñu wëllëre wii di Alaaji Mor Diop Mansour jóge ba puji bës ànd ak soxna màggat bu sëñ Babacar Si Adja Ndeye ba mii jóge Verona am na sunu jarbaat di Fatima Ndaw yàllaa ci congaat bii di man may moom fu ma jëm ci diaspora bi man ak moom la duudu mi seede ko di njabootu Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass pour ëllëg ni rek ànd bii du àndu kër kii di sama doom di sama jarbaat di sama taalibe ndax li ne ci dëndam ci alquran ñoo ko def ci bopp sunu bii jóge ba Bergamo di loo ànd ak soxna bi ak suñu doom day ay ña bëggoon a ñëw ëpp ñoom lii ca Abdul Ahad jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm dañu fi am wëllëre wu ne ci saal muy sëñ Ahmad Lo signalé nañ ma ko léegi su ma ko teeloon a yëg balaa may jël kàddu dama koy jox kàddu man loolu laa gëm man li ma gëm mooy li ñëpp ko war a seq bokk ko dañ ko bokk te aljamaatu furqatu azab ñoo ne ci dëkk bi nekk gi yéen lii lu ñëw di ko def ñoom la jàppale mën a libérer salle bi ndax bu ëllëgee buñ ko soxlaa mu yokk si lañ ma xamal ni mi ngi fi ma bëgg mu jege si nuyoo te mbooloo mi sànnante ak ñoom kàddu gërëm caméraman yii ñi nga xam ni mooy filmé lii ñuy wax sëriñ bi si nañ ko tegal foofu siis nañ ko dugal ak benn benn siis ak yéen di gërëm borom ñi yore sonorisation ak caméraman yi nga xam ni ñooy filmé ndax lii ñuy wax fii lañ koy wax waaye àdduna ñoo koy seetaan àdduna koy déglu. waaye gërëm sama jarbaat soxna Roqi Ndaw du doomu Adja Ami Mbay ak Alaaji Cheikh ku ko ñaanal yàlla yàlla mottali ndawam mu yàgg a topp ci gannaaw ay waajuram di gërëm bu baax fédération bi yëpp jigéen ñi góor ñi mag ñi ndaw ñi mën naa lim tur waaye nga am lu leen dalee wax moo tax doyloo ngeen alaaji Cheikh mii ma jaar ci moom nuyu soxna yu tedd yëpp góor ñi ñoom Tidiane Gueye kenn des ko Tidiane maa ngi moom la ca kon ma sant gërëm leen beneen jotaay bi incha allahu taala kon sëñ mi ngi jéggalu ci yéex a xam ne yaa ngi fi yéex a xam taxawaay bi nga am ndax léegi laa si jot ndax ñun lu ñu jot rek yore ko yéen ñi fi toog lañ ko yore kon ñu bàyyi la nga nuyoo teg njaboot bi incha allah bismillah وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي عندي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ñi nga xam ne ñoo la gunge ñëw ci béréb bi ñu ngi leen di dalal di leen wax ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adabi di rafet lu jëkk jéego yi nga xam ne moom ngay dox di ko def ci mbooleem réew mi ak ci gox yu fasantikoo yi waaye yéen di rafetlu kàddu yi nga xam ne yaa ngi koy seq ak bokki jullit yi ci buñ la gisee ak buñ la gisul ñu di ko siiwal ci chaîne yi ci gërëb yu bare bare la xaj na jëmm ji la yàllay dox ñu koy door a ñu gisante waaye miin nañ ko lool ci tooge ay jataayam muy wax muy dégg mu demee nii rek ñu di ca am mbégte di ca jariñ di ca jariñ lépp delluwaat ci liggéeyu islam kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant bokk yi nga àndal yëpp di rafet lu yittee ko ndax lislaam dafa nekk tool boo xamante ni bii bu yaatu na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk jawriñ jëw sayyidina Muhammad nag ngir ñu dégg ko li nga xam ne moom nga nu fi jox ci ay duruus ay ay ay ay neex a xam bu fekkee dégg nañ li nga doon wax fekkee dégg nañ ko dana neex a loolu du jafe xam kooku mooy Seydina moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bu fekkee dañoo topp ay càllalaan ci ay waajuram fépp fu àgg rek maanaam fa la tedd nga yow borom subhaanahu wa taala bi mu dikkee bu ko neexoon mu tagg ko ci loolu ndax sañ na ko te bu ko waxee it ñëpp dañ cee ànd ndax day wér ndax gis ne jaroo la yi nga xamante ni bii ay maamam taxawee nañ ko ci lislaam ca njëlbeen ba boobu waaye dafa ñëw tàgg ko ci ay jikko wa innaka la ala xuluqin azim loolu moo tax xadis bi nga indi di xadis boo xamante ne bu am solo la selman qataa wa axsin ila man asha ilayk wa xaaliq annaasa bi xuluqin xasan ci beneen riwaaya muy bi nga doon teg muy lim ko ba mu juróom juróomi pëcc

moom la borom محمد رسول الله والذين معه أشداء maahu الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اهل السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوم يجب الزغار علي عبدهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالح منهم مغفره واجرا عظيما كم ما سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم كن نغا خامن نون لا ني تاجيون سوي مام دي صحابه يي اندون موم تي ديم ني باغي خل ني تاي جي ني داغ ووي وورد داغ تي كين كو خامن ci njabootam la ak foo mën a toll ci dund maa war a fexe ba tàggoowu di wéy ndax moom la borom bi wax ne ashiddaau alal kuffaar ruhamaau baynahum kon buñ nekkee ci suuf yi nga xam ne la nekk war nañoo bàyyi xel ci ne mission bi nga xam ne moo gàcc woon ci sunu ay wayjur ci lislaam mission boobee daggul moom jant bi ñooy ànd moom weer weer ñu ànd ba keroog suñu borom bi far seenu nekk keroog la mission bi di jeex kon kenn ku ne li nga ci fekke mooy sa mission te loolu nga war a taxaw di di jëf ca nga war a taxaw di wax ca nga war a taxaw di rafetal loola nag mooy muhammadun rasulullahi sallallahu wa alihi wa kon bu ko defee fii nga xam ne lañu nekk di suuf soo xamante bi suuf la soosu fekk nañ fi yeneen i bindee fi suñu borom ci genn wet ñu am luñ bokk waaye ci yeneen wet ñu am luñ wuute waaye terewul nag am nañu lu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon suñu diggante ak ñoom loola mooy lañ nañ fexe ba ñoom buñ ñu gën a rafet ay jikko nañuy roy fexe bay mel noo xam ne ñoom dañ koy roy ci ñun lu ëpp nga ñoom ñu ko roy ci ñoom donte kat li ci ñoom lépp it gisu ko woon gannaaw ndax am na ca loo xam ne lu ñu mën a jariñoo la te dañ ko war a jariñoo kon loolu mooy bi ñu war suñu diggante ak moom tey ñu am yar ak teggin yu ma sëkk ci loolu yi ci fexe ba góorgóorlu ci njaboot gi nga xamante ne bii yàlla daf leen a toxal ci suñuy gannaaw ci suñuy loxo ñu suqi ko fii ci suuf yii dañu xam ne am na lu ñu war suñu diggante ñoom te amee nañ leen bor boo xamante ne bii mën naa bàyyi xel mooy tënk lañ ci diine lislaam ñun la war ñun la war yàlla joxe nañu ko bu ko sooboon bu joxe ne ko feneen waaye fii lañu ko joxe lam ci ñam moo ko xam kon ñun lañ ci warit dañu war a góorgóorlu ba mottali ko góorgóorlu ci njaboot gi bu baax a baax ci jàng alquran yar leen ci yarub diine njaboot gi ñi nga xamante ne bii ñoo leen lànk di seeni wayjur góorgóorlu ci lislaam góorgóorlu ci yarub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy sira kon ñun fañuy li ñuy wax rek du bari waaye dañuy sof suñu kàddu yépp ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi ay jikko la ay jikko la buñ góorgóorloo ci jikko yi nga xamante ni bi mu man ci doon loppi ndax mooy ki nga xamante ni bi ballaxa risaala wa addal amaana wa jaahada fillaahi haqqa jihaadi kooku mooy Seydina Muhammad kon ñun lañ mën a jël ca loola muy góorgóorlu ci tënku ci ay ndigalam tënku ci lépp loo xamante ni moom lañu sant waaye mooy fu lépp loo xamante ni luy suufeel suñuy jikko la wala muy ñaawal suñuy diggante wala muy nekk loo xamante ni bii du doon ndam ci kon loolu la kon sëriñ bi ngeen ñu bañ a guddal eh, ñu leen di leen sant bu baax baax ndax lislaam doxal wax la rek ba tàmbalee ba lële bi doxal wax rek mooy li nga xamante ni bii moo ko ndam bu ko defee nag kon yéen yéen ci dox ndax bu ngeen toogee. ñoo ngi gis seen liggéey ci lislaam ba ngeen fekk ñu fii ñu xam ne yéen a yokk ay jéego ba fekk ñu bi lépp nekk ci lislaam yàlla na borom bi subhanahu wa taala nangu ñu leen di sant bu baax a baax di rafetlu waxtaan yi bu baax a baax di sant bokk soxna yi nga xamante ni bi kenn ëpp leen yitte ci lii ndax bu fekkente ne bi ñi ngi ciy doxe ñun góor ñi nekk na ne soxna yi dañuy xam ne ñoom ñoo bëgg lii waaye it ñoo ci def seen lu tuuti ak lu lu lu gudd ak lu gàtt ba mu agsi fii léegi nag la ca des mooy góorgóorlu bu baax ci fexe ba mu nekk ak sampu sampu biiw ñaari kilifa yi ak seeni taxawaay matale na ko incha allah li ci des ay yitte yuñ ciy dolli rek mu nekk loo xamante ne bii dana bokk ci liggéeyu lislaam bokk ci sampi yi nga xam ne mënees na cee doole suñu jàmm yàlla rafet ci suñu rafetal ci suñu nekk a ngi leen di bale ci kàddu yi lu ci dëng ci ñun la ndax dañ koo waajib waaye nag du sof suñu kàddu ci kàddu yu kilifa ñaxee seen seen waxtaan macha allah waxtaan dafa xam waaye déglu ñu di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Ahmed ñu baal yàlla fa ñun. dégg leen ci kàddu yi dégg ci dénkaane bi njaboot gaa ngoog sa njaboot démb tey di sóobu la ñu ngi sant bu wér suñu doom ji suñu garbaat du Papa Dieng nekk fii ci réew mi ak yéen du doomu daara mission bii ñu dox si ah moo xam lu nekk suñu borom waaye ngeen xam ne ci suñuy ndaw la bokk ñi nga xam ne dinañu dox suñu diggante ak yéen te ay jotaay yoo xam ne mën ngeen ma bañ a gis waaye mën ngeen ko gis incha allah mu leen koy dégg bu baax di oustaz Pape Hann Dieng ñu tudde ko maamam ñu doon xaafidul Quran baayam góor gi oustaz Baye Badara Dieng di ko tur yonent bi moo ma ko présenté ci tàntu Seydina kon Pape bu dee juróomi minute fukki minute la nga wuyante mbokk yi ne soo ko yëkkati jotaay ndigal la nag. yaa ci dolli rek mu tuur xol yi war a taataan taataan nañu nopp yi war a dégg dégg na ndax sëriñ bi mu jëlee bi muy wax li muy wax directement ci xol yi la jëm dañu wax ni lu génn ci gémmiñ nag ci nopp la yem ak lu wax ja bëri bëri borom mulxatul sëriñ jàngal ñu ko ca daara ja mooy wax ni xayrul kalaami maa xalla wadala la gën ca wax ja mooy layam te am njariñ ndax bu guddee rek soof te ñépp biir nañu sëriñ ndigal li mooy ñu jël kàddu lii lañu amoon lu ñuy sànni ci kàddu ñaanal la yàlla yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi nga yàggu ñu jiite ndax damay wax ni ñun ku ñu xam fii de yàgg naa wax yàgg naa dégg may wax ci tànt ni du wax ba jeexal te fiiruma xilaas te sëriñ moom ma ko digaloon ba nuy jàng ca daara ja li mu wax léegi daara ja bu ñu musaana jàng ba jeudi nga xamante ni taalibe yi dañuy noppalu dañuy woo ñun ñëpp berne ñu bigaluñu ndax taalibe moom yaakaar naa ko nekk daara xaw xam ne dafay xaw a tar waaye mu woo ñu ba pare jox ñu nag aywa Mouhamed Seck waayal kii firi moo tax ku fa génn nekk gàmmukat yàlla seede noo moo tax dañu lay ñaanal sëriñ yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi xam nañu ni li njabootu Seydi Hadji Malick teg ci sa ginnaaw bëri na ndax ku la xam-xam ni amoo jot benn yoon dañu lay ñaanal yàlla yàlla may la nga àggale sa mission ndax yéen mission yonent ngeen yore kon yal na yàlla may leen ngeen dund te yàgg te itam yàlla may leen ngeen àggale lépp di jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàddu loolu loolu moo doonoon kàddu gi sëriñ yal yàlla fay na tabaarakallah bëgg na waaw dafa mel na Adja Abi soxna Abi yéen mouvement les amis du prophète ba Serigne bii juddu tey ci Préval yi ngeen xam ni daal Mame Baye Abdou Aziz oustaasu mouvement les amis du prophète ñu ngi toog li ñuy waxtaan ci groupe bi dinañ koy wax waaye jotaay yi nga mi ngi ñëw. ngeen xam ni seen ustaas a bokk al ishaaratu nag teg li man àqal juñ ju doy na ko am xel ngeen xam ni mouvement bi daal li ma leen wax lenn rek mooy sunu yéene mooy wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bi des mooy mag ñi mu am ci senegal ñu défendre seen xarit amul leneen àndandoo nekk benn ku ne fonkal sa morom kilifa koo xeebal kilifa bu waaye koo fonkal kilifa bu fonk kon mouvement les amis du prophète ànd bi mooy ku ne na fonkal moromam kilifa ñu bokk ci ñu bokk mu seen soxla na ñu jotaay jàngkat boo xam ni xasida Sëriñ Tuuba mooy bindam Cheikh Abdoul Ahad a ngi nii ni lay waye bu Alaaji waaye dégg naa ko xalima Maam Cheikh Ahmadou Bamba ci mouvement les jeunes bi ko fekk ah Love your doom is good, Messiah. عمي أبو سبتي المختار وهو ابن عمي علي على فقتينا نخمة مجرد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 حق قدره ومقداره العظيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام فيها سلام فيها السلام فيها السلام فيها السلام فيها السلام فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين امين حاج بكر جندر ينجف يلا يلا فكاتي بدو الجامع اكو في كل بوك في اي بريجي يواني 毎回は